lan nga lan ngay faral di gis yow ci en tant que taximan affaire yu grave yoo xamante ne yaa ngi koy faral di gis sa liggéey. yow la kon dëgg moom yaa ngi secret taximan. loolu moom secret taximan ñu moom. waaw secret taximan la te franchement parce que am na yoo xamante ni moom taximan du ko def. Hmm? am na yoo xamante ni mën nañ koy waxtaan mais am na yoo xamante ni moom. kon dëgg moom yaa taximaan warul taxaw sax di ko ah, mais yow kon ah, yow en tant que taximaan yow est ce que war nga di nangu yow ay ñaawteef yu mel noonu di xew sa biir taxi. comme ni nga non du am. loolu loolu xalaatuma loolu tax. na ah, yoo xamante ma fonk sama noonu laa mais yow dañuy dégg taximaan yi booy da ñu war a dem ba yegg fi ñu jëm wàcc rek daw mu tuddee ko commando. non yooyu moom du jiyee. yooyu moom du jiyee. man mos maa yab benn liggéey yóbbu ko sa yaar. ñu dem ba àgg ci guddi yi nekk. mu bàyyi ko biir mu wàcce ci gi ay trois heures du bi mu ko topp ko ci gannaaw. ma attention. waaw muy yéeg ma yéeg xale bu jigéen. bu jigéen ma yéeg ma yéeg papa comme àgg. ubbi mais yow comme par exemple yenn ay jigéen duñ la jël jigéen jël la ah ne la ñu dem ngeen waxaale ci d'accord ci kàddu ba pare ngeen dem ba foofu mu ne la amul lu ma lay fayee nañ yéeg ñu am lu ñu mel. waaw mais yow yow day am mais ah. yow yow nii tactement doon liggéey liggéey naa jóg. loolu moo dul intérêt dafa yow sa yoon ñëw sax. loolu moom day am. mais dafa am taximaan yoo xamante ne dañuy nangu loolu. waaw non noonu moom daanaka du nay taximaan ndax am na ñoo xamante ni bokk si. Hmm. ni mu bokkul si ci ñëwee tamit waat. kon tëjee si yomb mais ki nga xam ne taxee ko tax a jóg. mu bàyyi fameem bàyyi njabootam dina xool yeneen ñu dul ay nekk ci yëfu ñàkk fay dayoo di taxawaat. Hmm. soo ma neen lii laa am lii laay fay. Hmm. ma dem sama yoon. mais dañuy faral di gis aussi ay xale yu jigéen yoo xam ne dañuy taxaw ci kaw télé bi mais ñoom taximaan yi la ñuy ciblé maanaam dañuy taxaw ñu demuñu mais dañuy arrêté benn taxi ah taxi bi bu taxawee duñu waxaale sax dañuy jékki-jékki dugg ci biir loolu lu muy demee exactement. loolu lan la quoi man damay gis loolu. yow yow yaa ngi bàyyi jigéen xale yu jigéen ñi nekk si tali bi yëpp muy taxawaal. 最后一把一个人去拜，啊，没有打起码，打起码，那打还是那有，打起码他们有没有？啊，可能可能像我我我这有有朋友们，我们这个大家人就这些，啊，我有呀呀干过。waaw man de de exemple déjà damay dégg yenn saa yi benn waay keroog dafa ne ma moom dafa dafa soxla jigéen maanaam dafa soxla caga mu ne mu laaj ma mu ne ma. man de benn taximan de moo may moo may jox réseau yi moo may jox dil yi maanaam moo may jox yoon yi yéen est-ce que da ngeen def def faral di am ay taximan yoo xamante ne dañuy xam exactement réseau yi. wala war a war a taximan yi dañuy faral di liggéey ak jigéen yu mel noonu. Eh, mënuñ ñàkk ndaxte aussi liggéey guddi boo is ndaxte guddi képp ku koy dox lu si lu si nekk mën nga koo gis surtout ne doon taximan ndaxte euh, doo ko di guddi yi fi lay nekk di ngeen xam. xam nga soo yëbee nit nag mu expliqué lu mel noonu te yow liggéey moo tax a jóg mais man nga faa yóbbu yow ah nag dana du xaalis rek. ah kon yow kon soxla yooyu dañuy maanaam dañuy liggéey ak taximaan yi. non waaw am na ñoo xamante ne amit taximaan am na ñoo xamante ne bu lay dem dañu ko jël taximaan bi ñëw jël leen mais est-ce que yow yaakaar nga ne loolu yoon la maanaam est-ce que bokk na ci euh, culture Sénégal est-ce que bokk na ci li ñu yaree Sénégalais. mais du tey ñoo yaa. parce que Sénégal tool yi jikko yi ñoo yàqu loolu moo xam ne nit ñi bu jëkkoon sunu moom maam yi dana koo jomboon mais léegi jigéen ñi jombatu ko nag kon nag mën a toog si dara def ci dëkk bu mu baax il faut mu am yoon. waaw ah. loolu moo mais yow bu ne dee ba bu ne bu jigéen ñi nga opportunité da ngay am xaalis nekk ci benn tamit xawaar kooku kay xam nga jikko yooyu baaxatul waaw mais ñooñu ñooñu di am carte ñooñu sax d'accord naa parce que ñooñu dañoo reconnaître seen liggéey mais ñoom lii la ñuy def comme liggéey mais li si ëpp léegi dañuy gis ay xale yoo xamante ni duñu liggéey suñu amuñu carte ah mais da tax a bon rek mooy tax aussi ñu ñu dugg ci yu mel noonu te ñu gis ni que ne taximaan yi dañu ëpp dañuy liggéey ak taximaan yi ci loolu yoo xam nga li koy waral en général xam nga dangay nekk famille boo xamante ni say famille duna man xam nga say parents nekk kaw gën a ñëw fii yow dund fi jël fi appartement nekk fi xam nga di fi dund yenn dund yi di dimbali say parents mais du question sax ñoom man ni ma ko gisee bon na fii déggin top top top top trop sax trop mais nag am na yoo xamante ni man moo loolu noonu daal waaw mais yow kon kon est-ce que yaakaaroon taximaan yi aussi dañuy encourager jigéen yu mel noonu ah man bokk ah

natt distance bi nga yéegal bi ngay wàcc yaa ngi koy yàgg koo xamante ni waa naa benn waxaaya il faut nga ñëw doon ñëw ma ku sëlee ñëw waxtaan ma waxtaan ak yow mais su dul yow mën a wax ma waxaaya yow du ñàkk yow da nga may jox tuuti rek wax ma rek wax ma ñàkkul ni que am na benn jour nga tajek benn boo xamante ne bu garaaw ah am lu mu mel ak yow am lu mu wax ak yow ne après ñu am lu ñu mel man in duma du may in duma na ma si yow jigéen duma na ma si waaw ah. ah. yep ko yóbbu ko ba aar ko mun ma aw ma ma fee sama bopp laa xam ma ne ko xalaatuma waaw mun ma dégg ma yaay ma ne ko du ma yaay eh mu duma ma si duma laa wax duma danaan doo duma duma ma waaw duma ma xeexaa man duma woon gene ma waaw jigéen jigéen di boppam xanaa moom daa bëri doole ah moom ah. ëpp doole moom ak dégg maam yaa moom ëpp doole da te saa yi jeeg yoon la waaw ka boobu man sama xaalis rek kaa gis waaw boobu moom sama xaalis jaaw yoon dama sama barke mais yow munoo yow munoo woon am li nga mel ak moom après nga oh, nga ne jàll ci leen sama soxna bu hmm. ma soxna rek taxee jóg jigéen kese hmm. damay dem sama soxna ah. waaw mu wóor leen da ngay nekk sa soxna di am yiir waaw hmm. ah, bokk laa